bismillahi irrahman irrahim alhamdulilahi rabilalamin walaqibatu lilmuttaqin wala udwana ila ala alzalimin sahinuka rabbi walistihanata ila bik wa ahmaduka wala zanahu ila halay wa usalli wa usallimu ala sayidina wa maulana muhammad lazi jahaltahu rahmataka lilalamin wa jaxaltahu miskal xitaami li zaahiril mursalin wa baad bokk yi ñu seetaan te dañuy seetaanee fii ci seen télévision DTV ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam dellu si nañ beneen yoon àndaat ak yéen ci beneen tomb waxtaan ak yeneen i gan di leen ndokkeel ci àjjuma ji di leen ci ziyaara di leen balu ak di leen baalu ak di amaat yéen bu sell pour ànd ak yéen ci jotaay bi doon nañ leen dégg ci suñu bande annonce na leen bu ñu yàlla fas nañ yee a waxtaanee xitaabu takfir silaahul jamaat al mutatarifa fi asri al hadis loolu mooy lan discours bi nga xam ne discours yéefarloo ab jullit la dafa nekk ngànnaay lenn ci mbootaayu lislaam yi nga xam ne dañoo ëppal ci wàllu diine ci jamono bii ñu dund man ak yow nga xam ne kuñ mere wala ku am ak ñoom problème ñu dagg la ci diine ci loolu moom lañ bëgg a waxtaanee tey bi ñu ko bëggee waxtaane nottoon nañ nit seet ay borom xam-xam yoo xam ne am nañ ci ay gëstu ñu woo leen ñu comp ci seen jot wuy si ki jiitu ci ñooñu mooy imam Ahmed Arouna Ly moom ngeen jàkkaarloo ni imam Ahmed Arouna Ly jàngkat la jàngalekat la gëstukat la jàpp naa ne plateau bi ñu ko invité tey muy ëttub lislaam miin na ko yegsi na ci jotaay bi ñu ngi koy dalal jàmm ndi <coughs> ko masawu ci coonay déplacement bi imam Ahmed mi ngi ànd ak doomam ak xaritam Fallou Seye ñu ngi leen dalal jàmm ñoom ñëpp Euh, di ci toftal euh, suñu rakk euh, di Cheikh Baye Niass moom it mu doon xale bu loxoom set mu doon jàngkat di jàngale kat moom it plateau bi miin na ko ñu woo ko mu comp ci jotam wuy si ñu ngi koy dalal jàmm di ko masawu ci coone déplacement bi. di fas yéene nag ñaan yàlla defal ñu tawfiix ba liñ ci bëgg ñu am ko ci waxtaan wi nag ñu ngi ko bëgg a tëralee ci nii may tudd bëgg nañ ak leeral ci ña xam lan lan lañ jublu ci fiir maanaam yéefarloo nit wala baatu yéefar rek lan lañ ci jublu ak yan façon mooy yi ci gën a fes ci yoo xam ne danañ koy def jublu ci seen mbokkam jullit bi ci des euh, lan mooy sabab yi nga xam ne mooy tax ñuy jëfandikoo wàllu yéefarloo mba jullit wala ñu yéefarloo ab état wala ñu yéefarloo ab société lu tax ñu di ko def yan sabab ci lañ koy teg beneen bi yan source ci la ñuy sukkandiku ñoom kuréel yooyu ñu tuddee mboolaay mbootaayu yu tukk takfiir la doomu aadama moo xam source ay sunna la wala alquran la fan lañu sukkandiku bi ci des euh, mbootaay yooyu di takfirloo seen mbokki jullit yi fa mel ne dañoo jël baatab yéefarloo nit def ko muy fonction ci wàllu lislaam tey nga xam ne fonction la boo xam ne dañ koy utiliser wala saan lay doon woo xam ne dañ koy utiliser saa yi ko jox laa jëmale ko ci kenn loolu lañ bëgg a waxtaanee tey mais laata ñu dugg ci waxtaan wi ñu yëkkati kàddu njaal ci lamini groupe Excaf Télécom jame ko ci kenn ci ustaas yi liggéey fii ci rajo Dunya muy Sidi Yahya Kunta yàlla dogal yaayam wàññeeku ci fan yi passé ni ñi ngi koy jaale ci turu group bi yëpp di ñaan yàlla yàlla yàlla sa mbattal yermaa dem ci kawam bi nuyu it suñu mbokk yi fulaado yi nekk fële ca Kolda eh, ci njiital Tidiane Dabo ñoom ñëpp nga xam ne bu heure bi jotee ñu ngi toog di seetaan télé bi tey Imam Ahmed eh, gannaaw bu ñu la nuyoo balu la àq baal laa àq mm-hmm. di la masaw ci bi Mm. kon ñu jox la kàddu gi boo nuyee bokk yi nga leeralal ñi lan lañ jublu ci takfiirlu maanaam yéefarloo nit ak yan façon les koy defee alhamdulilahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi at-tayyibin imaam maa ngi lay nuyu ci nuyu bu yàlla moo ko jagleel ummatu muhammadin muy nuyu waa aljanna di mucc ak yërmande ak barke yal na la ko yàlla defal defal ko mbooleem kuy askanoo ci ummatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam amiin ñu bokk ko ñu ñëpp naan leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi nuyu di ziyaare Cheikh Baye kon su ma ko defee nuyu naa suñu xalifa Cheikh Mahi kon suma nuyoo Alhaji Moustapha Guèye mi nga xamante ne maa nekk ci jàngoom kon mel na ni kon nuyu naa mbooleem xalifa yi mm-hmm. boo ci tuddee kenn doy na mm-hmm. kon sëñ Mbay Si Mansour ak sëñ Muntaqa ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu duma ma fàtte kenn nag ci waa kër Cheikh Oumar kadalika waa kër maam li maayu ñoom ñëpp daal tudd naa leen kon bi ma tuddee benn xalifa maa ngi lay jaale suñu wëllëree di suñu xarit Cheikh Iyaan kadalika sama papa itam ki ma yar muy Cheikh Adama li maa ngi la koy jaale ci semaine bi ñoom ñëpp lañu ñu ji yàllaa leen woo yàlla mi leen woo yal yàlla defal leen aljannay firdawsi muy seen kër imam Cheikh Tidiane hmm. mbiru kéeférloo mbir la mu bon hmm. te yàgg ndaxte buñ la ne ci jamonoy Ali ibn Abi Talib bi mu nangoo jàmmoo ak Muawiya ngir ñu wéer yi deret bañ di tuuru foofu la benn mbooloo buñ naan xawaarij génne ngir bañ jàmm far yéeféerloo imaam Ali ibn Abi Talib ndeke ñooñu yàgg nañoo yéeféerloo kilifa yi ñooñ nag ñooy dox ba tey yàlla mayoon nañu njëkk ñi jàmm ñu taseeg benn ku jullit yi tuddee adabullah di xajaaj ibnu yuusuf adabullahi lañ ko doon tuddee moom moo leen faagaagal ba ñu jeex gannaaw kay azariqa naafi ñoom sabib shaybaneeg xatar yi ñoom ñëpp moo leen faagaagal ndax gisoon na ne daal ñoom dañuy yàq société bi ala kulli xaal xajaaj moo def loolu gannaaw si loolu nag ndeke seen xalaat yaa ngi fi waaye balaa ñoo def lenn lan mooy takfiir takfiir su fekkente ne wax nañ ko ci luxa mooy suul dara loo suul rekk muy njekk walla dugub wala gerte yow kaafir nga ca waaye lan lañ ci namm nag ci lislaam mooy koo xamante ne weddina tëraliinu yàlla yi nga xamante ne moom yàlla moo ko tëral te wax ne tëral yi ku ko weddi yaa génn ci lislaam loolu mooy kufru takfiir nag mooy koo xamante ne dafa dem ba jàdd comme ni ko Malik doon defe dafa dem jàdd comme ni ko yonent bi doon defe te waa ji tànn ko itam ba nga xamante ne moom lay weddiloo gànnaaw ba nga xamante ne leer na ko ne lii wedd yàlla la mu tey def ko waaye boroom yéene bu rafet lu mu juum juum ak lu mu def def amoo droit di ko takk fiirloo lii musiba nag imaam naa ñëw rekk ci takfir comme ni ko Ahmad ibnu Hamd alxalili di mufti ci Ummaan na mu ko waxee moom daal takfir daal weddiloo nit mooy seppi jullit ci yaramu islaam sànni ko ca bitti mu ne mbir moomu mbir mu bon la mbir mi itam mbir mu jafe la ndax ku gëm yàlla du ko def laa yaqdumu alayhi may yàq llaaha nii la ko waxe ndax itam mu ne li ko waral mooy musiba yi ci nekk islaam dafa ñëwoon di boole nit ñi moom de tas na buumu islaam li ko waral mooy islaam dafa bëggoon jàmmoo moom moo indi musiba islaam moo doon indi ñoom ñëpp ñu def nekk benn miir di bokkoo di jëfandikoo li yàlla wax waaye nag waa ji indi na musiba ba tax na kon mu ne bokk na ci li nga xamante ne moom la yàq ñu commencé koon ci jamono Ali ibn Abi ba tey bu ñëw rek gën bon bu gën gën bon waaye nag ñoom te ala kulli xaal daanañu am luñ ci wot waaye tey boo ko seetee ñay takfiirloo tey mooy dañ lay takfiirloo ba pare ngir seen intérêt bopp encore hijra la ne doo bokk ak ñoom sax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu beru la teg ko nag ci ay yan teg ko ci ay wax yoo xamante ne dara ju ciy dëgg tay euh, imam euh, Ahmed Arouna imam bu ma la déggee mel na ni feeñalal nga ñu ne li ñuy waxtaanee nii tey ngir euh, la moo xam ne mu bon la wax nga it lu sori fu mu déparé la ndax buñ la déggee mel na ni ma nga déparé ca diggante wuute ci doxoon diggante Ali ak Muawiya am benn kuréel bu fàqee ci partenaires yi imaam Ali walbatiku contre ko carré taxaw dagg ko ci lislaam mu doon lu doy waar mhm. ndax mu xam Ali ni mu toll ci jëmmi lislaam wallahi bu nit taxawee di ko dagg ci lislaam dana xaw a doy waar ñu baax ñi rek lañ koy def voilà mu <laughs> eh, nga wane ne kuréel boobu nag mooy ñi ñu tuddee alxawaari wallahi ñu foogoon ne foofu la yem mais ndekke mi euh, ngi continuer di ba jamono bii ñoo xam maanaam seen i sët ñoo fi nekk kon tey. wallaahi ko ko sañee tuddee. Mm-hmm. nga ne terewut amoon na jamono boo xam ne Hajjaj ibnu Yusuf xañoon na leen jàmm. Mm-hmm. ba teg leen ci guerre yoo xam ne ba faagaagaloon na ci ñu bëri. Mm-hmm. waaye xam nga li wala fi dañuy wax ne lu jiw ba jeexut jógu fa. wallaahi jógu fa. comme jiw bi jeexu fi woon nag kon moo continuer ba wes na ki tey. nga wane bu fekkee da nga bëgg a andi définition bi mooy suul mbir. wallaahi parce que suul bu nit ko xamee nit ci ci lislaam muy julli di woor di joxe asaka di def lu baax wala li ngay def yépp tuddee ko lislaam yow moo la ko dàq allahuma wuute ngeen ci école wala ci déggin rek nga xëy na ko dama bëgg a suul sa jëf jooju yow génnee naa la ci lislaam ndeysaan xam nga loolu doy waar la wallaahi léegi buñ la déggee kon mel na ni mbir mu doy waar la léegi yan mbir moo ci gën a fés ci seen ñi li ñuy takfiire ñoom ab Ousmane waay e, dugg ci li yàlla moom atte yàlla moo ko moom ne na ngeen féetewoo benn ma féetewoo benn mm-hmm. li feeñ mm-hmm. na koy atte mm-hmm. li nëbbu ngeen bàyyee ma ko ñoom nag dañuy audité xolu nit ñi naan kii audité naa xolam seet naa bi xam wér le na wala wér dañuy xëccoo yàlla ak mbubbam ñaareel bi su fekkente ne bokkook ñoom def nañu bidaa àndoog ñoom ca seen bidaa ba ñu leb yéeféer nga ñoom kon dañuy def bidaa la ay bidaa kese lañ nekk li ñu def yépp yépp jàngewuñ ko ci yàlla jàngewuñ ko ci yonentam ci ay ñàkk xam lañ ko def ndax am na ñoo xamante ne dañu ne li lii mbir mi mooy dañu ne alquran nee na ma farat naa fil kitaabi min shay'in kon amatuñu soxla ci yonent bi ak hadisam mu ngi ñëw day duggante mais dina génnaat loolu moo waral ñu ne ndem loolu am na soxlawuñu xadiis te xamuñu ne alquran ak xadiis yàlla moom ci boppam moo ko wàccee ci ummatu muhammad yonent bi ne uutiitul qur'aana wa misluhu ma'ahu yàlla ne wa yonent bi wa anzalna ilayka zikra li tubayyina linnaasi maa nuzzila ilayhim leeralu yonent bi nga xamante ne moom la leeraloon ñeel saxaaba ya moom lañ weddi loolu moo waral nag ñu taxaw ne wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa ulaika humul kaafiruuna ne cépp ku atte lu dul alquran yéeféer nga tay jërëjëf imam ahmed men na nii eh, leer na ne eh, dañuy dañuy dugg ci lu ñu war dugg parce que xolu doomu aadama yàlla rek jagoo xam la ca nekk wallahi parce que yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu fekkee moo ñuy waxoon ne fal na akumu naasa bi zawahir wallahi wallahu yatawalla azarahir mm-hmm. kon loolu ñun am na fu ñu yebloo fi mu ñu yemloo mooy gis naa imam ahmed di julli julli laa ko mën a tudde gis naa muy woor woor laa ko mën a tuddee gis naa mu jàngal Alxuraan mais nag su ma bëggee xotti sa xol bi xam ndax gëm nga li ngay def wala gëmuloo ko kooku beneen affaire la. wallaay audité ko waaw ah, audité ko yow baatu audit sax <laughs> kon mel na ni eh, problème bi foo lu juddoo kon mel dañoo dugg ci lu ñu bi ci des mooy mu nekk lu kéemaan wane nga ne ñoom ndeket dañuy woote jëmee ci nit ñi ne al sunna la ñu jëfandikoo alxuraan la ñu jëfandikoo te am na ay bidaa. te bidaa yooyu la ñuy wuuteeg doomu aadama yi ba tax ñu leen takfiir lool loolu ñu sos loolu jamaa boobu mu ñu sos Aline jiitewu ko Ousmane jiitewu ko ñi nga xamante ne ñoo njiitu lislaam kenn jiitewu ko ca ba pare sos ko ba pare di ci yéeféer ku ci nekk daal ñu ne jullit nga ku ci nekkul ak koo mën a doon ñu ne yéeféer nga jërëjëf jërëjëf imam ahmed xam naa danañ del seet ci yow ma ñëw ci Cheikh Baye Cheikh Baye gannaaw bu ñu la nuyoo baalu la àq baal la àq di la dalal ci ëttub lislaam beneen yoon <coughs> eh, ba nuyoo bokk yi bëggoon nañ nga yóbbaale même laaj bi ma lan lañ jublu ci takfir ak mm-hmm. yan façon mooy yi ci gën a fees ci gaa yi koy jëfandikoo waaw aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin allahuma ya zal jalali wal ikram salli wa sallim ala sayidina muhammadin daairati al anwar wa ala alihi al athar wa saxbihi al axyaar xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim ilahi sabaqa ilmuka bilmaalumaati wujudaha wa axaata iqtidaaruka bilkaainaati falam tataadda xuduudaha zaharta xata gaara alayka alcaarifuun wa batanta xata taxayara fiika almuxaqiquun taalayta an lawsi lidraaki kama tanazahta an rigsi alishraak fa quluubuna ilayka saa'ira wa arwaaxuna fi jamalika xaa'ira saaxabtanaa bi lutfika qabla zuhur ila aalami shuhud wa qawamtanaa bi ruux ismika alwadud fi maratibi alwujud laka alhamdu adada ma kaana wa ma yakun innama amruka ida aradta shay'an an taqula lahu kun fa yakun yaa himmata cheikh udur lana bi hada almahdari wal taatafi bi nazratin taati lana bi zafar asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu al oustaz Cheikh Tidiane bi tey maa ngi lay ziyaara bu baax di la nuyu di nuyu al imam eh, di ko ziyaara bu baax a baax ñu bokk ak plateau bi mm. eh, di ndokkeel ci tarxu bi mu def am na solo trop mm. waaye di jiital ci nuyoo bi tamit sama kilifa muy xalifa Medina Baye Cheikh Mouhamadul Mahi Ibrahim Niass. Mhm. ak sama sëriñ sama buntu ci Baye Cheikh Mouhamadul Mahi Ali Cissé porte parole Medina. Mhm. buñ leen nuyoo nuyu nañ kilifa diine Sénégal yëpp. Mhm. di ñaanal yàlla kilifa yi diine Sénégal yi yal na yàlla aar leen sàmm leen. ñi ngànk àdduna bi tamit ci Sénégal kilifa yi yal na yàlla aar leen sàmm leen. ñi fi bàyyeekoo ñu ngi leen di jaal ñoom ñëpp. waaye di jaale particulièrement koo xamante ne kenn la woon ci ñun muy doomi oustaz Babacar Niang bi nekkoon wal fajri Mm-hmm. tuddoon ko mu tuddee woon ko Sid Lamine mm-hmm. mu génn àdduna démb ci guddi ñu koy jaal di ko ñaanal yàlla ndawla woon yàlla mottalee ndawam ci aljanna eh, di ñaan yàlla mu saxal jàmm ci Sénégal xam na mm-hmm. sujet bi am na solo trop laaj bi tamit am na solo torop imam def na ci loo ama am solo mooy indi na jaanib lugawi bi wàllu terminologie bi ci côté eh, grammaire ak terminologie bi ci côté diine waaye buñ ko bëggee gàttal rek mën nañu wax ne takfir mooy génnee nit ki ci diine bu fekkee dañuy wax ci étymologie wu l'islam hmm. mooy ñëw li nga bokk ak nit ki nga puus ko wan ko ne yaa ko ci gën a yeey moom amatu ci place hmm. da ngeen a bokk néeg bu ngeen di fanaan nga jiitu ko fa ñëw tëj néeg bi jël caabi ji denc hmm. bu ñëwee amul fa place loolu nag mu nekk loo xamante ne buntu la bu yonentu bi ak yàlla mi moom diine ji tëjoon tuuteel ko sewal ko pour ñi ciy dugg néew et lil shadid yenn borom xam-xam yi ñu ngi tuddee seen bopp boroom xam-xam entre ñëw yaatal bunt boobu lool yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam booy jàng saqaafa alquran ak saqaafa hadis da nga gis ne dafa tuuteel buntu weddi yàlla yaatal bunt ak gëm yàlla lu néew bu ko nit ki defee mu ne ko rahmatullahi waasia yërmande yàlla yaatu na hadisu Usaama ibnu Zayd mm-hmm. euh, nit ka nga xamante ne dafa jeexaloon dundam ci bokkaale yàlla mm-hmm. dem ci xare Usaamatu tiim ko nar koo rey mu ne laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna Muhammadan rasuulullaah Usaama ne ko da ngaa ragal a dee waaye du tee daal di ko jam bi mu ñëwee ñu nettali ko ko ndax da nga koo waxee laa ilaaha Muhammad rasuulullaah mu ne ko waaw mu ko préparé lan ngay layoog yàlla ci mhm. laa ilaaha bi hallaa shaqaqta an sadri ndax xotti woo xolam xol ba xam li mu wax dëgg la ci moom wala déet mhm. kon gis nga koo xamante ne dund na bu la neexee nga ne 99 ans ci na ko buntu alxuraan dafay junj lu mel noonu wa in ahadun min al mushrikina stajaaraka fa ajiruhu hatta yasmaa kalaam allah summa ablighuhu ma'mana mhm. même ñi bokkaale yàlla buñ ñëwee ci diine ji dañoo war a fekk quiétude dañoo war a fekk sécurité dañoo war a fekk xel mu dal mhm. yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam noonu la sewalee buntug bokkaale yàlla ak buntug génn ci diine yaatal buntug dugg ci diine ak lu nit def rek mu dugal ko ci yërmande gi mhm. léegi nag dafa am ñaari façon takfir yoo xamante ne moom ñii ñoom ñiy takfir moom lañ am dafa am côté boo xamante ne takfir siyaasi lañ ko mën a classé mooy wàllu politique moo ko jur. politique boobu dafa am ay ahdaf maanaam ay euh, objectif yuñ ci bëgg. moo xam ci wàllu adduna moo xam ci wàllu alal moo xam ci wàllu jiite nit ñi. comme na ko kenn ci buur ya waxee woon jamono banu umayata maa qaataltukum li tasuumu wala qaataltukum li tusallu wala li tuzakku qad alimtu annakum tafaaluuna zalika walakin innama qaataltukum li ataamara alaykum wa qad aataani allahu zalika wa antum lahu kaarihuun hadis bi mu ngi ci musannaf bu ibnu abi shayba mu ngi ci bidaaya wa nihaaya bu ibnu kasir ak ci yeneen téere hmm. yéen ngir ngeen julli wala ngeen or wala ngeen azaka wala ngeen aj maak xam naa ne ngi def loolu yëpp waaye dama doon xeex ak yéen seen i ngir nekk seen buur te yàlla jox na ma loolu malgré yéen hmm. kon gis nga ne loolu mbiram siyaasa la te par la suite kooku noonu buur boobu noonu moom mooy ñëw toog ci kaw minbar yi am ay borom xam-xam yoo xamante ne mën nañ leen a tuddee ulama u ñëw di ko joxeel ay fatwa hmm. comme ni mu bëggee di ko yenn yi ñenn ñi ragalul yàlla ci ñoom di créer ay xadis. Mhm. ñenn ñi di jël yenn xadis yonent bi nii di dëngal déggin bi pour saalixu li buur boobu bëgg. kon gis nga ne loolu dafay dugg ci jaanib yi moo tax li imaam wax sànq mu nekk lu am solo. Mhm. mooy lu yàgg yàgg la. Mhm. commencé wul tey commencé wul ci siècle bi ñu génn. côté diine bi il faut d' abord ñu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ak dundam mësta yéeferloo nit. dul koo xamante ne ñetti pàcc ci benn ci ñetti pàcc yi nekkoon ak yonent bi nga dëkkoon. moo xam nga nekk ci côté xéeféer bi inna allazina kafaru moo xam nga nekk ci côté jullit bi inna allazina amanu yaa ayyuha allazina amanu moo xam nga nekk ci muzabzabina bayna zalika muy naafeq yi mm-hmm. waaye yonent bi nit mësta def dara mu ne ko yow yéeféer nga ci li nga def nii xanaa nit koo xamante ne dafa murtadal boppam génn ci diine ku mel ne ñoom abdullah ibnu abi sarh ak ñeneen ak ñeneen ñu mel noonu ñoom ñoo choisir seen bopp génn ci diina ji waaye alxuraan ba léegi mu ngi leen di may opportunité inna allazina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran lam yakun illaahu li yaxfira lahum mhm. bu ngeen weddee gëm weddiwaat gëm opportunité am na ba léegi du ne benn yoon ngay weddi rek sax ñu balaame la complètement comme il faut nga am deuxième chance am troisième chance ainsi de suite am na benn xadis bu ne ci saxiixu muslim mu ngi ci yeneen téere mhm. yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam toog di seddale dara benn waay bu ñëw Zul Xuwaysira ñëw ne ko ragalal yàlla yonent bi ne kan moo gën a yee ci man ma ragal yàlla wallaay Zul Xuwaysira waaw ci riwaaya Xaalid ibnul Walid bi mhm. Xaalid ibnul Walid ne ko ndax doo ma jox ndigal ma dagg baatam parce que kii xeeféer la mhm. yonent bi ne ko déedéet la allahu an yakuna yusalli amaana mu ngay julli mhm. bul ko rey kon gis nga ak ñàkk teggin bu mu mën a def ci kanamu xadrat sayidina rasulullah ak wax ju mu mën a wax lu mu rëy rëy bu fekkee mu ngay julli rek la nekk ci xolam yow sa yoon nekku ci Seydina Omar ibn al-Khattab xadis bi mu ngi ci Buxaari bi Xaatib ibnu Abi Balta defee lam def ci bind secret yonent bi di ko yónnee xeefeeru Màkka ba yonent bi jot ci bi lettre bi ñëwee Seydina Omar daf ne bi jox ma ndigal ma dagg baatam hmm. yonent bi nekk ko maa yudrika la allah tala ala ahli badrin fa qaala ifaalu ma shi'tum faqad ghafartu lakum kon dagg baatu nit moo xam mu nekk physiquement mooy tuur deretam wala mu nekk euh, kii xissiyan xissan aw nan maanaam moo moo xam nga dagg baatam ci censuré ko kii bu mu fi waxee kii raafidi la kii nitu bidaa la kii bu leen ko déglu comme ni ñuy bindee ay téere naan kutubun xazara min hal ulama téere yi boroom xam-xam yi aaya nañ ku ko jàng ay téere ñoo ci nekk loolu yëpp ci dagg baat lay dugg dagg xam-xamu nit dagg waxu nit censuré nit loolu yëpp yonentu bi jàngale na ci aaya ko bal sayidna rasulullahi ci boppam taxaw na ci xare Uhud di ñaan aw nit yàlla ne ko laysa laka min al amri shay aw yatuuba alayhim aw yuazibahum fa innahum zalimun mbir mi moomoo ci dara bàyyi ko ci loxo yàlla bàyyi ko ci sama loxo ma mbugal leen wala ma jéggal leen loolu ça me revient waaye du yow sayidna rasulullah ki nga xamante ne xalim baa qudra yàlla gi làmmiñam bi lay déglu bu ne waaw mu ne waaw bu ne déet mu ne déet moom la yàlla di defal barrière yu mel nii pour ñun ci ginnaaw ñu mën a xam loolu waaye finalement léegi benn borom xam ngay gis rek jàng na quelque téere tuddee nañ ko mufti wala oustaz mu toog lu oustaz bi tey def mu ne ko xeefeer mushrik kaafir lu Cheikh Baye def mu ne xeefeer mushrik kaafir lu imaam def mu ne ko xeefeer mushrik kaafir léegi nag jël diina yàlla ji moomale ko boppam comme ni yahudu banu israel yi doon wax ñoom rek la yàlla di déglu hum abnaullahi wa ahibaahu ñoom ñooy doom yàlla ñooy soppeem lépp luñ déggee ci texte yi yàlla wàccee loolu mooy déggin bu authentique lépp luñ déggeewu ci texte bi yàlla wàccee duwul déggin bi authentique te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne bu leen doxee noonu ubbi leen buntu yi yi dafay am waaye ku nekk xelam mënta tolloog moromam ni baaraam yi di wutee noonu la mhm. laa yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza bu kenn ci yéen julli taakusaan lu du ci banu Qurayza ñenn ñi saxaaba yi demee ba ci digg yoon bi ñu julli parce que waxtu yu jot na ñeneen ñi dem ba yegg bi demee kenn ku nekk bi ñu ko waxee yonent bi mu ne leen li ngeen def baax na yéen ñi julli ci yoon bi dangeen ngeen a jëfandikoo beneen xadis mooy li gën ci jëf yi mooy julli ci waxtu ba yéen ñi da ngeen a jëfandikoo zaahiru ndigal li mooy ñëw ba yegg si doo ko julli waaye fi mu toll nii comme li imaam wax léegi koo wuuteeg ci dégg-dégg même bu dee masala boo xam ne masala xilaafiya la nga génnee ko ci lislaam borom xam-xamu ahlu sunna yi dañuy wax ne ahlu sunnati laa yukaffiruuna ahlal qiblati bi zambin ahlu sunna bokk na ci seeni chart du ñu loo ñooñ xibla bi maanaam jullit ñi ngir ab bàkkaar bu ñu def waaye nag xawaarijul asri yi comme niñ jëlee seen seen xawaariju maam ya jiitu woon ñu doon takfiir Seydina Ali hmm. ba pare di wax naan laa xukma illa lillah loolu rek la ñuy mën a def pour bañ a monopoliser parole bi jërëjëf euh, Cheikh Baye Niass euh, Cheikh Baye bu ma la déggee mooy takfiir buñ ko waxee mooy génne nit ci diine hmm. Hmm. ci te li gën a simple wane nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñun moom la ñuy roy te ku ñuy roy it koy roy moo tax ñu di la roy yonent boobu musta yéefarloo doomu aadama ubbil na nit côté yëpp sens yu bëri joxe nga ci Usama bun Zaydin waa jooju mu rayoon yonent bi wax ko na ko ndax dangaa xotti yoon xolam ba xam li muy wax gëmu ko mu doon loo xam ne ak soññ la ci ñun ñëpp kenn ku ne di tey ci luñ mel wax nga ne boo lu mel noonu suñu ko seetee ñaari takfiir moo am yéefarloo nit pour politique yéefarloo nit ci wàllu diine ci politique joxe nga ci buur boobu nekkoon ci banu Umayya te bëggoon a falu xam na ne gaay a ngi ñu ngi woor ñu ngi joxe asaka mais pour pour mu am yegg ci pouvoir bi man ko incarné faaw mu rey leen mm-hmm, mm-hmm. wala mu teg fiir loon loolu côté boobu loolu moo ko ci yóbboon mm-hmm. loolu toujours dama koy faral di wax ne soo seetee li ñu tuddee ulama u sulta état umawi yoon yi ñoo ko instauré ci taarixul islam yi ba bés ni ki tey am ay ay borom ay état yoo xam ne dañ koy jël garder ay borom xam-xam euh, rangal leen garaat yu komi bu ko defee ñu takfiroo nit ñi bi ismi diin te fekk laysa min al islam fi shay mhm. tayib bi ci des mooy feeñal nga ne takfir boobu am na mhm. te gis nañ ko mu doon lu wér beneen bi am loo xam ne ci wàllu diine la mhm. diine comme ni nga ko waxee Cheikh Ahmed wax ko wuuteeg nit ci école wuuteeg nit ci mazhab wuuteeg nit ci ba gisin bu ko defee mu am sañ-sañ dagg la ci l'islam mel ni noneel la ci kër baayam te sa noneel su kër baay sax moom moo ko yow kenn bon mu doon nga ne ahlu sunna wal jamaa mm-hmm. bi nga xam ne jullit ñëpp moom la ñu référé mm-hmm. ñoom dañoo wax ne du ñu yéefarloo nit mm-hmm. kon nag tey dana nekk jaaxle trop tey bu Cheikh Baye ñu waxee ne man ahlu sunna jamaa la wala Ahmed Aroon wax ko di ma yéefarloo wala mu yéefarloo keneen kon danañ ko laaj ban ahlu sunna wal jamaa mais fi nga daaneele am solo trop moo kon nit ki du du gàll lu dul lam nàmp li nga nàmp rek ngay mën a gàll mënoo gàll mënoo gàll comme dañ koo doon noonu nag ci seen maam yi alxawaari hatta asila sa lool rek la ñu mën a wax tayib euh, imam ahmed ma del siyaat ci yow bëggoon nañ xam sabab yi tax kuréel yi di am sañ-sañ bu toll ni parfois ñu mën a xëy jël ab état bi kaamiliha ne état bi état bi yéefar la wala ñu jël ab nation bi kulliha ne nation bi population bi ay yéefar la fi ñu koy teg wallahi maa ngi sant Cheikh Baye ma asbax leyla bil baariha di ko taaqibal benn ci banu umayata am na kenn ku ñu naan xajaaj ibnu yusuf ku mënoon alquran la mm. waaye nag waxoon nañ leen mu biir la moom mm. xadis ñëw na ne mu biir bi saqif lay bàyyeekoo ñu ne mooma mm. da doon wax ne topp ko moom buur bi moo gën a feddali ko topp yàlla ndax alqur seetal fikra yi muy indi muy wax ne ndax yàlla ne fa fattaqullah def ci tekk mastataatum mais atiu llah wa atiu rasul mu ne amul mastataatum topp ko ba tax na bu la waxoon tey jaaral ci buntu bii mu ne nga yow nga jaar ci buntu bee mu ne dagal na mu rey la gis nga afkaar yooyu nga xamante ne moom la ñu indi xale yi di ko nàmp loolu moo jur musiba yépp ci taaqib bi Useymin dafa lu am solo nen xamuñ ko woon ci ahlu sunna waaye tey de ñii nga xamante ne ñooy salafiya yi dañ koy def te dañ koo jéggaani jëlewuñ ko fenn lu mooy ci firqa yi nga xamante ne borom bidaa la te itam mag ñu njëkk ñi balaa ñoo wax nit borom bidaa la day mel ni xawaarij nga xamante ne dangay taxaw ne usmaan ak Aline ay yéeféer lañ te yàlla gërëm leen te yàlla du gërëm yéeféer wala nga mel ni ñeneen raafida nga naan Abu Bakr nag Umar ay yéeféer lañu loolu maa ku dul ñii nga xamante ne weddiwul dara ci alquran weddiwul dara ci sunna xam-xam nag mënul motale boo ko ne borom bidaa yow yaay borom bidaa bu gën a rëy sabab yi imaam sabab yi bokk na ci liñ ci waxoon rek mooy wuute ci politique ak ci diine ci diggante mbooloo yi ak kuréel yi loolu nag moo indi ay contrante ak ay contradiction kenn bu ne bëgg na sa xalaat di wéy mais alquran dee kooku sabab boobu moo ko indi kenn ku ne bëgg nga say feemu daawa kenn ku ne xam nga daaw yi dañu am ay feem kenn ku ne bëgg nga ni ngay wootee di jàll keneen ni muy wootee du jàll loolu indi na ko bokk na ci ñoom mbir yi nañ koy déggee mbiru politique niñ koy déggee déggin bu gàtt lay doon ndax aaya boo xamante ne yonent bi firiwu ko te yàlla yonent bi moo firil yàlla alquran wa anzalna ilayka zikra li tubayli linnaasi amoo ci imaam te dañu ne bépp masala boo amul imaam ca saxaaba ya na ko baax wa iyaaka wal masala allati laysa laka biha imaam ndax yàlla moo neen wallazina tabauhum bi ihsaanin il faut ñu jiituñu ku na wasaabiquuna wolu na ñu topp leen ci rafetal yow nga bañ a topp ñooñu nga ne weddi woo yàlla te <laughs> mbir mi da nga koo def te nga ne bu ko kenn wax bokk na ci sabab yi imam e, ñàkk a jàng comme li nga xamante ne moom la yent bi jàngale ñu doon ko ci saxaaba ya hmm. bokk na ca ñaawin déggiin bi nga xamante ne xamatoo lan moo tax islaam jóg maqaasidu sar i bu jege bi ak bu sori bi ndax itam kenn ku ne xam ne islaam li mu tax mu jóg mooy xëcc njëriñ yi puus lor yi lii mooy maqaasidu sar yi xam nga kon ku yindeeti lor yow loo doon <laughs> islaam li ko tax a jóg hmm. xëcc njëriñ puus lor yow noonu lor yi rek ngay xëcc puus njëriñ yi yow loo doonati loolu mooy problème bi gën a rëy ci ñoom <coughs> te loolu yëpp aaye boo xamante ne ñëw na li nga xamee noonu la mag ngi doon jàng nga xam lu al arabiya nga xam lu tax mu wàcc ak nan la koy saxaaba yi firee woon loolu moo tax wallaahi génnuma mais maa ngi ñëw daf ca bokk Umar dafa jooy benn bés. te wal leen ma Ibnu Abbas mu ne ko looy jooy mu ne ko nan la xeet wi mën a teqali ko te seen lépp benn la. seen téere benn la seen xibla benn la seen lépp benn la mu ne kaay ma wax la ko dañoo jàng alquran xam li tax mu wàcc. dina am ñeneen ñoo xamante ne bu ñu ñëwee dinañ jàng alquran du ñu xam lu tax mu wàcc su ko defee al istidlaalu bi xayri mahallihi ñëw. su ko defee ñu wuute reyante Umar wax ba na Abbas jóge fi ma doon xeex ma doon jooy wuute nga may tegal reyante yow danga nga ma yokk si biiru dama yàgg mu waal ko waxaat ko mu waxaat ko mu ni ko kon wax nga dégg gis nga soo lii hadis bi boo demee ci masnad bu daara mi danga ko ci fekk kon loolu moo waral ne dañ dul xam nusuus yi fan lañu dëkk duñ ko jàng tey euh, Cheikh Ahmed bu ma la déggee mel na ni euh, dellu nga ci gannaaw tuuti bi ngay taqib ci Cheikh Baye position bi Hajjaj ibnu Yusuf taxawee woon ak lenn ci nit ñooñe ba wanoon leen na leen topp ko moo gën a jaadu topp yàlla wallaahi ba am ci ñoo xam ne sax dana jaral mu faat leen mm-hmm. mu mel ni loola mu continuer di wéy euh, ba nga wax ne Cheikh Ousaymin mm-hmm. wane na ne takk takfirloo jullit xamuñ ko ci ahlu sunna wal jamaa mu mm-hmm. dëppoog li Cheikh Baye doon wax léegi mm-hmm. eh, xañ na kon dañ ko jëggaani mm-hmm. waaye nag am nee léegi di am na ci salafiya daa mu ne léegi am na ci salafiya nga ne léegi eh, ñi ñuy tuddee alxawaarij ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo taxawoon di takfiirloo ku mel ni imam ali ak imam osman da di takfiirloo abou bakarin ak ak eh, omar nga ne ñooñu bu ñooñu passé ñi ci des yëpp comme ni nga ko waxee soo ko seetee sabab yi xam-xam bu néew ci la bokk. wallaahi parce que xam nga jàngkat yëpp d'accord nañ ne ñaar ñoo yem. Euh, ndox su néew ak xam-xam su néew. wallaahi ndox mu néew du dindi sobe. lu may def ko yokk. Mm-hmm. xam-xam bu néew du leeral masala lu may def koy gën a lënd ba. wallaahi nit ki nag bu fekkee xam-xamam nekku fa yaatu mu taxaw ñi mee taxaw ci kanam de ay joxe ay fataawa. kooku day yokk xar mi ka <coughs> mais ma ñëw ci question bi bañ ko génn mm-hmm. mooy euh, sila u takfir mm-hmm. li daw la wala bu tama parce que mm-hmm. parfois nga gis ñu ne yëkkati ngàddaay ne ne état sàngam yéefar lañ xam nga loolu rëy na trop wallaahi boo jëlee ab état bi kaamiliha nga ne dañ yéefar lañ wala nga ne société sàngam ay yéefar fu ñuy teg loolu moom oustaz eh, xam nga waxoon naa leen ne ni ko mufti ummaan bi waxee ku ragal yàlla du ko def ndax yéeféerloo mbooloo moom loolu ala kulli hal la amoo droit sax yéeféerloo koo xamante ne def na kéeféer su dul danga koo leeralal ni ko alquran waxee gis nga gaa yi dañoo wax ne dañoo gëm alquran te gëmuñu ko ndax dañu bëgg a wax ne waman yu shaqiqi rasula rek nuslihi jahannama loolu la ñu bëgg a gëm te alquran ne wa man yusaqiq rasul il faut nga at indi min baadi ma tabayyana lahul huda wa yattabi gayra sabilil muminin waaye waaye nga doog koo teg attem mais koo xamante ne ba muy def lii yéene bu rafet la ca am loolu ñaareel bi itam gis nga dañ ko waxoon xam nga dañoo waxoon ne li taxoon dañoo jël yàlla boo ko seetee cheikh abu husam dafa wax lu am solo ci téereem ba ne jamaatu takfir la ko tuddee ne ñoom dañuy utiliser xele yi bi ñu xamee ne xele yi fitra lañu am dañoo bëgg yàlla bëgg yonentam bëgg hadis bëgg jihaad ñu wax leen ngëneelu jihaad ba pare nag ne leen qaatilu ladina yaluunakum minal yi hmm. nit ki booy rey ki la gën a jege ngay rey mu ne mu dellu ñu wax ne wa man lam yahkum bi ma anzala allah fa ulaayka humul kaafiruuna yée ñi attee ay yéeféer lañu loolu moo tax rek xale yi jóg di defanteek ñoom ñoom itam di leen di def c'est que mbir mi defante la c'est que soo amee fetel ñoom am nañ lu ëpp fetel waaye nag loolu moo tax léegi ñuy daal di nebbutu di def ay musiba te itam da ngay seet imaam yonent bi sallallahu alayhi di wax ne bokk na ci ngëm yàlla nga fekk benn xottu butéy nekk ci yoon wi nga génne ko pour mu bañ a lor nit nga jël lu gën a bon xottu butéy muy bomb nga di ko def ci marché walla ci jàkka wala ci avion nga ne islaam la seetal ni ñu soree islaam ngir réer encore su fekkente ne wax nañu nga daal di jël aay yoo xamante ne d'accord am na aay yoo xamante ne dañoo wàcc ñëpp a ko bokk jullit ak yéeféer a ko bokk mais am na ay aay yoo xamante ne ba ñuy wàcc yéeféer kese kese moo ko moom jullit bokku ca ndax xoolal wa man lam yaxkum bi ma anzala allah fa umal fa kaafiruuna kenn ku ne xam ne najaasi najaasi gëm na yàlla attewul islaam te yonent bi jullee na ko mook saxaaba yi te ku julleeb yéeféer yéeféer nga ñu ne ku attewul ku dul islaam yéeféer nga seetal seetal danger bi ñu def ci yonent bi encore suñ ñëwee duñ jàng comme boo demoon ci ibnu kasir ñu ne lam yaxkum bi ma anzalalla fa ulaika humul kaafiruun kufrun duuna kufrin kufrin la yuxriju anil millati kéeféer googu nekkul kéeféer gu lay génne ci lislaam mais kéeféer la boo xamante ne degré moo gën a rëy kabaa'ir yi ñu delluwaat xamuñu ne kufrul amal yi laa yuxriju anil millati walakin kufrul itiqaadi yuxriju anil millati kéeféer goo xamante ne jëf la kese mënulaa génne waaye li nga fas la comme ni nga xamante ne xam kenn ku ne xam na ŋaññu yonent bi ŋaññu yonent bi ku ko def te nga gëm ko yéefér ngay doon mais gis gis nañu amaar ba muy ŋaññu yonent bi xolam bi dafa fees dell ci ngëm yàlla yonent bi nekk fa in aadoo fa ut loolu moo tax ñu ne kufrul amal yi la yuxriju jërëjëf euh, imam Ahmed Arona bu ñu la déggee mel na ni kon euh, dañuy utiliser ay aaya yoo xam ne fi xayri mahalli wallahi istidlaalun fi xayri mahallihi parce que bu fekkee dangaa jël ñetti wa man lam yaakum bi ma ansalallaahu yooyu mu jaral la nga mën ci takfirloo benn état wala nga takfirloo ci benn société ak misaal bi nga joxe fii léegi. najaas yi mosu ko def yonent bi jullee ko yonent bi jullee ko. te ku jullee bi yéeféer yéeféer nga. wax dëgg yàlla war na nekk gag-gag ci ñi koy def. bu fekkee xam ci la ñu référé wu waxuma nag bu fekkee dafa tegu ci comme li Cheikh Baye doon wax nga xam ne politique la. xam nga politique nag moom. Mm-hmm. Euh, ni ko nit ñi définir mooy euh, rafetal wax yoo xam ne du dëgg ba mu niru dëgg te fekk du dëgg. loolu taxu ñoo jóg ñun li ñu tax a jóg mooy aay nañ ko teg fi ba xali seet ña ko yelloo ñu teg leen ca ndaxit it ma zalika ndax ñoom ñooñ di takk foor la nit mu ahalin ñu ko war a def lañ loolu lu war a xam la wallahi tay xamuñu ko waaw mënuñu ko waruñ koo def tay jërëjëf euh, Cheikh Baye ma dikk ci yow ci même laaj bi bëggoon nañu xam euh, kuréel yooyu nga xam ne ñoom la ñu tuddee euh, alquwa fiir yi wala jamaa takfir yi yan sabab yu mag ci la ñu mën a sukkandikoo ba xëy am fit wala sañ-sañ mën a takfiir mën a yéefarloo benn société wala yéefarloo benn état fan lañ koy teg. macha allah imaam Ahmad tarxam bi am na solo trop. Mm. Euh, xam naa fi ñu koy teg ñaari yëf la. Mm. bi ci njëkk mooy àlluwa gu gàtt. Mm. musiba la. ñaareel bi mooy ñenn seen borom xam-xam yi leen di jox fatwa yi lavage de cerveau lañ leen di defal. Mm-hmm. maanaam wa maxtalafu illa min baadi ma jaahumul ilmu bagiyan baynahum am na ñoo xamante ne laa shakk am nañ àlliwo ci ñoom waaye nag xawan nafsu moom moo leen jur maanaam topp seen bànneexu bakkan moom moo tax dañuy takkal seen i taalibe ay lunette comme yi ñuy takkal fas xoolal fii bul xool fii jublool lii comme ni ko imaam waxee léegi da tadrijiyan par étape lañ la koy jox ne la qaatilu lazina yalunakum minal kufaari xeex leen nag ña leen ña a jege ci xéeféer yi nga jëm loolu ñu ne la léegi ka la jiite xéeféer la kon booy rey rey ko loolu mooy suite bi alors Seydina Abdullah ibn Omar dafa am benn wax ju mu waxoon wax ji mu ngi ci Buxaari mu ne intaliqu wala intalaqu ila ayatin nazalat fi lkuffaari fa jaaluha ala almuslimin dañoo dem jël aaya yi yàlla wàcce woon ci xeeféer yi ñu teg ko ci seen kaw moromi jullit ña te loolu mu ngi ko sukkandikoo ci xadis yonentu boo xam ne xadis bu wér la yonentu bi sallallahu alayhi wasallam toog di def dara am ku ñëw ngàññi ko comme ni ko waxee léegi bi mu ne kii nii def lii am na ñuy topp ci ginnaawam ñuy ñëw gëm ay pas-pasam kenn ci yéen bu gisee seeni julli dana xeeb jullee moom day foog ne ñoom ñoo ko gën a mën mm-hmm. bu gisee seen woor dana xeeb wooram day foog na ñoo ko gën a mën bu gisee seen azaka dana xeeb bosam day foog ne ñoo ko gën a mën waaye dañuy jàng alxuraan di ko neexal ba nga xeeb sa jàngin wi yow foog ne ñoo la gën a mën te fekk du yegg ci seen xol bi ci seen turux bi la yem mm-hmm. nee na nag yuqaatiluuna ahlal imaani wa yadaruuna mm-hmm. ubaadal awsaani dañuy xeex ak ña gëm yàlla ñoom ñooy seeni noon premier moo xam état la moo xam mujtama la moo xam far afraad la di bàyyi noonu yàlla yi di jàmm ak ñoom di nekk ak ñoom ci jàmm xam nga bàyyi noonu yàlla yi tey ji weesuwul exemple dawla bi gën a rëy ci lislaam muy dawla saoudia ci ahlu sunna moog Amérique comme suukar ak soow ñoog Israël comme suukar ak soow di lekk duñ koy wane waaye même ci mois de novembre bi weesu rek premier ministre Israël am na réunion secrète ak kii nga xam ne mooy waliyul ahd bi nekk saoudia nga xam ne mooy xaar pour toog nekk buur ci biir secrétaire d'état américain Mike Pompeo moom moo jiite loolu de même moment que depuis 2014 ñu ngi bombardé yeman sous prétexte que ñi ay outil lañ ay chia lañ te xam nga ne amuñu kaaba bu bees bu bokkut ak sa kaaba gi amuñu bu bees bu bokkut ak sa yonentu bi amuñu xibla bu bees bu bokkut ak sa xibla ba léegi yaa ngi leen di bombardé ak ay avion F16 ay chia lañ ay xeefeer lañ yaa ngi jàmm ak Israël yaa ngi jàmm ak Amérique bal sa pétrole beeg sa alal jéeb yaa ngi leen koy jox hmm. dafa am loo xamante ne nag ci seen maam yi jiitu woon la parce que mbir mi mënoo koo jàngat tey jii rek mënoo jàngat meññet mi boo jàngatul garab gi ak reen yi nga xamante ne moom moo ko saxal Abdou Malik ibnu Marwan hmm. bokk na ci xulafaaw banu umayate hmm. daf daan xutba di wax ne man qaala li taqillaha darabtu unuqa ku ma wax ragalal yàlla ma dagg sa baat hmm. maanaam ñoom ñi ngi daan woowee xalif dañoo defoon seen boppu kawe yàlla kawe yonentu bi bal dañ daan wax ne sax xalifatullahi azamu min rasulillah maanaam xalifa ak yàlla ci biir mbindeef yi moom moo gën moom moo gën a màgg yonentu yàlla ci biir mbindeef yi parce que yonentu comme xale la booy yónni rek tandis que xalifa da nga koy teg pour mu wuutu la ñu ne ñoom looloo tax ñu di leen di ooyee xulafa muy plurielu xalif kenn nag moom ñu koy oowee rasul nga xam ne ab aju yónni kese la mm-hmm. loolu mooy waral seen topp yi tey man gis naa kenn nag ñoom ku ko wax ci Nigéria te gis naa ko ci téere bu ñu ko bind mhm. ñu ne yonent bi comme enveloppe la rek bu ñu la yónnee lettre génnee lettre bi enveloppe bi bu la neexee nga sànni ko ci mbalit bi loolu mooy waral nga mën a gis ku dem ci xabru yonent taxaw di ziyaar ngi bokkaale booy mhm. tagg yonent bi yenn tagg yi sax ñu ne la yaa ngi bokkaale xéeféer nga parce que dañu ko jàppee waa ji nit comme ñoom jàpp nañ ne gëneewu leen dara léegi ku jàppeewut yonent bi ne gëneewu la dara kon naka ay jàngaleem yu leer da nga koy jàppee ne gëneewu la dara danga koy jàppee ne comme yow la rek xelam mu rëy la doon utiliser finalement sa borom xam-xam yi ñëw ginnaaw gi ñoom ngay déglu ñoom ñooy say yonentu bees ni ko kenn ci ñoom waxee ci marsiya ibnu taymiya nee na huwa fii rutbati nabiyina fa alam hakaza axbara nabiyu ibnu taymiya ci maqaama yonentu la nekk hmm. loolu noo koy déggee mooy yonentu bi dafay wax dara mu aw ndeyjoor ibnu taymiya wax dara mu aw càmmoñ ñoom ñëpp ñu topp ibnu taymiya leer na leen leer yàlla ne amul ci ñu nekk ci ahlu sunna wal jamaa muy achaira yi wala ñooñ mu tasawifa yi ñuy def bidaa ci bidaa yi nga xamante ne ñoom moom lañ leen di tuumaal waaye ñoom ñi ngi def ay bidaa yoo xamante ne dafa leer nañ mais loolu la ñuy bàyyi jël fatwa ibnu taymiya ak fatwa muhammad ibnu abdul wahab ñëw di dóor ci kaw ñi léegi boroom xam-xam yi dëpp nañ ci benn règle benn qaayida boo xamante ne lu ama am solo la mooy toute loi ma ci français après mu kii toute loi qui n'est pas contre l'esprit de l'islam est une loi islamique bépp loi boo xamante ne wuutee wut ak maqaasidu sharia ak esprit wu sharia mën nañ ko jàppee loi islamique c'est pas forcé que nga indi aaya alxuraan bi liiral ko nit ñi nii wala indi hadis yonent bi liiral ko nit ñi nii tey ji par exemple Macky Sall bu tegee benn loi boo xamante ne amul ci sharia lu koy contredire comme loi ci wàllu finance wala loi ci wàllu xeex guerre wala loi ci euh, wàllu sécurité leer na la ne amul ci charia lu koy contribuer loolu dañ koy jàppee comme loi islamique c'est pas forcé que Macky Sall la ne charia laay atte tey ku sàcc ma dagg sa lox ko en plus que ñoom charia bi ñuy déggee wa man lam yaxkum bi ma anzalallahu dañ koo tënk ci ay mbir cëkkalal sa tubay bi guddal la sa sikkim bi yoro socc bu gudd ku sàcc daggal loxoom ku njaaloo ray ko wala nga kii ko nangam ak nangam alors que maqaasidu sharia mooy nga fexe jox nit ki lu ko doy ba du soxla di sàcc foofu la commencé mm-hmm. moo tax na Seydina Omar ibn Khattab jamono bi muy nekk buuru nit ku amaan sa mbayaal la bu sàccee bu ñëwee yow mi ko moom yow la ñuy euh, kiyal xadd bi yow la ñuy caw waaye pas moom mi nga xamante ne moom faqiir la da nga koo joxul lu ko doy moo tax mu soxla di sàcc mm-hmm. ñaareel bi ci wàllu njaaloo yi ñuy nekk di lapider nit ñi maqaasidu sharia mooy nga yombal sëy ba nit ñi dañu soxla di def ñaawteef yu mel noonu mhm. ak yeneen ak yeneen yu bëree bëri waaye ñoom ñëpp dañoo tënk maqaasid yooyu rek ci lii nii alxuraan ne falaa tuzakku anfusakum bu mhm. leen sangu seen bopp euh, sëriñ bi mel na ni bu ma la déggee feeñal nga ñaari mbir maanaam xam-xam bu néew ak mhm. euh, fexe ba ñu raxas seen bopp yi donte borom xam-xam la sax mais danañ ko def guerre morale boo xam ne taw ay taw jeex rek lañ koy jox xoolal fii mu xool fii waxal fii mu wax fii li wala fi wax nanga ko ëmb sa sànqal ëmb sa kersa mel na ni jë andi nga ci Abdullahi ibn Omar addis bu am solo bu wax eh, benn waaye jiitale fii bu jàngee alxuraan nga nga mel ni tey la ko yonent bi doon wàcce ca nam koy jàngee nam koy taj wiitee fa muy taxawee mais su jëfee nag macha allah maanaam bu jàngee nga ne gongo bu jëfee nga ne accam ñooñu nag nga ne ñooy dem ba jàpp jël sa mbokkam jullit comme ni ko imaam Ahmed waxee rey leen ñi leen gën a jege. Mm. danaa ko joxe misaal toujours ne xam nga bésub àjjuma ni tey eh, ci at yi passé lañ dem Seyna il Masra. Mm. fekk fa masjid boo xam ne ay sufiyanke ñoo nekk ñu rey fa 305 personnes ci àjjuma. allahu imaam bu taxaw ci comme mimbar di julli. nit ñi toog di ko tiim nga dugg ci biir jàkka jaray fa 305 personnes bi hujjati ne duñu ay jullit. Ah, kon fooy fekk jullit. Sayyid Ramadan Buuti luñ ko def. tubaab ngox ci biir jàkka la toog di jàngale. léegi ki nga fekk ci biir jàkk ray ko ne jullit fan ngay fekk jullit mhm. beneen bi mooy danay nekk jaaxle man toujours eh, boo xeelale xewoon fii Tombouctou mhm. ay ay xabru awliyahullaa yi nit ñu baax ñi kenn xamut ku leen gën ci taarix mhm. ñu dem napsul xabri yi sulli ko ma jàppoon ne bàkkaaru nit koo xam ne bu fekkee sax bàkkaar lañ am man jàngaguma ko bokk ku am bàkkaar ñu ne dagan na nga sulli bàmmeelam te ñoom fekkee wuñ ko ko fekkee wu noo mën a jugé nit ki ne damay toj armeelam sulli bàmmeelam al asas mm-hmm. yooyu yëpp doon yoo xam ne mbir yoo suñ ko seete boo ko seete wane nga nag waaye dañ ko dooneel inna wajana abahana ala ummatin mm-hmm. comme dañ ko doon nag faw liñ doon dana feeñ joxe li dem ci geeru yaman bi nga xam ne depuis quatre quatorze mais de mille quatorze mm-hmm. ba léegi kenn mënta indi justification guerre bi la ko tax a jóg mm-hmm. beneen bi wane nga Abdul Malik ibn al Marwan mm-hmm. eh, ku ma weddi ma dagg sa bopp tam te def lu safaanoog li yàlla di digle moom eh, mu doon yoo xam ne soo ko seetee yu bëri ne wax leen xalifatullahi mooy li gën a jaadu moyal xalifa bi kenn waru koo def tam nag sañ ngaa moyal yonent mooy li boo ko seetee l'islam bi addisat yi dafa am ay écoles yu bëri ñu war a càmbaraan donte jafe na trop nag mm. ndax li nga wax nii tey saa si ñuy def émission bi man ak yow Cheikh Ahmed am na gaa yoo xam ne boo leen toppee génn nañu ci diine ñun xam nga lan mooy problème bi baal ma ah. dogguma la mm-hmm. xam nga lan mooy problème bi mm-hmm. dafa am benn xadis bu ñu jël mm-hmm. xadis boo xamante ne muntalaqu xadis bi ci cosaan muntalaq siyaasi la munta cosaanu politique la xadis la parce que moo awee moo njëkk a wax xadis bi ci kaw suuf mm. mooy xadis iftaraqat al ila ihda wa sabina وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة حديث bi Muawiya mu ngi ko waxee ci Kuufa jamono bi ñu xeex ak Seydina Ali ba xawaarij yi génn ci Seydina Ali le temps Seydina Ali di dellu bi mu demee xutbaam bi mu def ci na ci naxi la ala kulli haal ñi jël xadis boobu ñoom tuddee seen bopp alfirqa naajiya def ko benn euh, cercle ni ku ci dugg mu mel ni badge bu ñuy takk dafa am ay simaat yu ñu lay xàmmee da ngay sa tubay ji day cëkk sa sikkim bi day gudd sa nangam nangam boo dee jigéen nga da ngay niqaab boo duggee ci loolu loo mënti def anta ibnullahi wa habibuhu yàlla yow doom yàlla nga yow yaa axi nga <laughs> léegi nag keneen ku dul kooku ak ku mu mu safara la jëm bokk ci alfirqa naajiya ñu commencé ko nag jël ay texte diine yoo xamante ne ni dañ koy firi nu mu leen neexee commence exemple xaaj tawhid ñu ne tawhid xaaj na ci uluhiya ak rububiya ak asma wa sifaat boo gëmee rububiya te gëmoo uluhiya du la jëriñ xéeféer nga boo gëmee rububiya te gëmoo uluhiya du la jëriñ boo gëmee uluhiya rububiya te gëmoo asma wa sifaat xéeféer nga ba Muhammad ibnu Abdul Wahab mën a wax ne ci téere bu tudd ad duraru saniya fil ajwibati najidiya moom ak yeneen borom xam-xam mën a wax ne man qaala laa ilaha illa allah laa laa ilaha illa laa tanfau qaailaha illa maa shurutin sabaatin aw kama qaal mu ne laa ilaha illa allah du jëriñ dara ku ko wax lu dul bu àndeek juróom-ñaari charte juróom-ñaari charte yoo xam ne yàlla waxu ko yonentu bi waxu ko xéeféer bi ma la wax sànq ci xadis Usaama ibnu Zayd benn yoon la wax laa ilaaha illallaah mustaqam juróom-ñaari charte yooyu yonent bi di ko défendre nekk avocat am mhm. di wax ku mel ni Usaama ibnu Zayd al xib ibnu naan ko préparé looy layoog yàlla ñoom nag ñu ñëw teg juróom-ñaari charte oustaz Cheikh Tidiane Bitèye wala oustaz Imam Ahmed bu ko jëriñ dara fekk àndut ak juróom-ñaari charte yi nga xamante ne ñoom jamaa boobu kese ñoo ko xam xam nga discrimination fii la commencé mhm. ak li ñu tuddee de anglais di tuddee hijacking mooy euh, euh, piratage pirate diine l'islam bi moomale ko seen bopp am na benn téere boo xamante ne mooy duraru saniya bi ma wax léegi ak fatawa ulama u najd xellente woon ñi di ko teg ci tele yi di ko jàngal nit ñi di leen wax li nekk ci téere yu am na benn téere bu nekk fii ci Sénégal bu tudd taqdisul ashxaas fil fikri suufi benn waaye fii ci Sénégal moo ko bindee xellente woon ñi teg ko ci tele yi jàngal nit ki la koo ko wax ci téere ba nga xamante ne daf laa jàpp loo ne sufiyanke yi nekk Sénégal murid beeg tijaan beeg xaadir bi eh, waaye jur bu góor mën naa takk doomam bu jigéen waaye jur bu jigéen mën naa seeg doomam bu góor amut lu xaram ci seen biir dañuy def lu leen neex sans dara donc yu mel noonu ñuy sol ci seen biir taalibe yi benn benn di ko def par marché noir nag comme ni ñuy jaayee dorog noonu lañ koy jàngalantee duñ ko jàngale ci public bi mukk buñ nekkee ci public bi ñoo gën a neex ñëpp làmmiñ buñ tëjoo ay bukki yu sàngoo deru bay lañ léegi nag ngay gis nit rek dajeeg moom ci transport public bi wala dajeeg moom ci mbedd mi nga gis muy funki di waaj a xëj te doo xam loo ko def yow fekk moom yóbbu na la safara bu yàgg moom mu ngi aljanna jërëjëf euh, Cheikh Baye bu ñu la déggee kon mel na ni mbir mi fam yàqoo dafa sori mhm. déggoon naa nga tudd ci gannaaw léegi ne Xaatib ibnu Abi Baltaata mhm. bi Omar ibnu Xataab bëggee wax yonent bi na ko jox ma ndigal ma dagg doxam yonent bi daf ko waxoon na ko xanaa ngaa fàtte ne mi min ahlil badar ci la bokk mhm. gis naa benn borom xam-xam fii ci réew mi mu doon référé wu ci lu demee ni saxla ba ba wax ne saxla ba jëf jooñ mu defoon moo ko génne ci lislaam Euh, ba ma demee benn wa benn waaye jox ma kaset bi ma déglu ko ma ne ko kii dafa juum ma ne ko lu mu référé woo mu ne ma naan saxla ba ab ab saxaaba la saxaab yi du def lu ñu mel ma ne ko haute trahison moo gën a rëy mm-hmm. te te Xaatib ibn Abi Baltaata def na ko mm-hmm. te taxul mu génn ci lislaam mm-hmm. ba ne ko boo comparé ñaar ñi kay. bi bi bi saxla ba mu def moo gënoon garaaw. te génnewul ko ci lislaam tey euh, Cheikh Ahmad ba del seet ci yow. Euh, kon euh, ñu weeg fàttali suñu mbokk yi ñu seetaan it ñu wax suñu réalisateur mu ubbil leen téléphone yi ko am lu muy laaj wala lu muy yokk. bëggoon nañ xam usus yi nga xam ne ci la gaa yi sukkandiku di def li ñuy dox li def nii war nañu faa doon. balaa usus yi dafa am ay muskila yoo xamante ne. imaam junj na ko wax ci yu bari. mais te yooyu itam mooy alhikmatu daalatul mu'min sallallahu alayhi wa moo ñu ko wax xam-xam bépp hikma julita ko moom foo ko fekk jël ko dañu la naan nun duñ ko jànge ci suufiya ñu ngi ko jànge ci diw ñu ngi ko jàng ci diw te yent bi moo ne foo ko fekk jël ko amul kër amul kër kon gis nga kon wuute boobu yant bi defalu ko place defal nga ko ay place mm-hmm. mut iminaa di itam lu ñu war a leeralal mm-hmm. loolu moo war a benn Ben den def musiba ya mu doon def mm-hmm. ndax xam na ni yonent bi làqu na ci mut iminaa di bi nga xamante ne waa Taayif sonal nañ ko ñu ne jullit du muulu ci bi yéeféer ku ko def yéeféer nga te loolu mu wax ku ko def yéeféer nga yonent bee ko njëkk kenn ku ne xam na ko Seydil Hadji Malick indi na ko Mm-hmm. ñaareel bi li nga xamante ne mooy am mooy iftaraqatil yahuudu la sàkka ne abu hurayrata génne na ko mm-hmm. ne yonent bi moo ko wax anas ibnu malik génne na ko hadis bi am na ñeenti yoon yoo xamante ne boo demee ci téere bu tuddu sunan ibni maaja taxqiq fuad abdul baqi da ko ci fekk mm-hmm. waaye yonent bi li mu ko jeexale maa ana alayhi wa ashaabi li ma nekk maag samay saxaaba loolu mu nekk moo ki saxaabaam nag moom la yàlla ne wallazina tabauhum kon mbir mi nee na ngay da dangay nekk saabiq al awaluna min al muhajirina wala lansaar wala nga topp leen walla nga fet wala nga fet di sab yoon kon loolu ala kulli xaalin lu am solo la ci li nga xamante ne imaam wax na ko ñu ñëw ci tomb boobu nga xamante ne nga ne ban tomb la encore usus yi usus yi maanaam usus yi ñu sukkandikoo ñoom kuréel yi di takfiir doomu aadama usus yooyu tuddoon nga ci ne jël amul lenn loo xamante ne war nañ koo takfiire doomu aadama te mu am ndaxte su fekkente ne nee nga ku àtte lu dul alquran yéeféer nga hmm. te gis nañu ñoo xamante ne ay julit defuñu ko <coughs> benn kon wamin huna kon nooy def te itam ñu xam ne islaam dafay tumuranke tumuranke na fukki at ak ñett ci makkatal mukarrama jaaseem jógut te yent bi ne sa yaudu kama dina demaat ci tumuranke boobu kon su fekkee am nga mu xam nga ne kon day am jamono joo xam yàlla mooy jëflante mooy jëfe coobareen waaye képp koo xamante ne daal mu wax laa ilaha illallah moom la Ahmad Bamba suñu maam di wax ne buleen leen bañ kenn koo xamante ne gis ngeen ko gémmiñam ga di génne laa ilaha illallah usus yooyu bokk na ci hmm. su fekkente ne téere yi nga xamante ne moo am ñu war cee sukkandiku téere yooyu defuñu ko muy tuus waaye nag waaye usus yi bokk nañ ci yont yàlla yuusuf la njëkk a dal ndax dañuy wax ne boroom xam-xam bu jaxasoog nguur war na yàlla ak yeneentam te yuusuf moo wax ne ijaal nii ala xasaayinal ard déggal liñ koy def fent hadis yu mawdu yoo xamante ne naan al ulama umana urusil ala ibadillahi ma lam yuxaalitu sultan wa yudaaxilu dunia fa in faalu faqat xaanu rusula fahdaruhum nga gis gis naa fi benn boroom xam-xam ci ñoom dafa jël oustaz ci usus yooyu dafa jël benn hadis bu wér dagg ko ne hmm. al ulama warasatul anbiya lam yarisu dinaaran wala dirhaman warasin walakin warasul ilma muy xadis bu saxi bu yi génne léegi nag mu ne al ulama warasatul anbiya départ ko ba mu yàgg mu dagg ko ne maalam yu xaalitu dunia indi ak xadisu mawdu bi te xadis boobu al ulama umana rusuli boobu shawkaan yi nee na mawdu la te imaam gis nga nag li problème bi nag mooy loolu moo waral li waa ji doon wax ne waa ji na ma ko doon jàngal tiir mm-hmm. bi mu mënee tiire man la njëkk a tiire wa allimuhu rimayata kulla yawmin la mastadda saaqahu saaqahu ramaani léegi loolu moo am ci sawdee yi am na ci ñoom ñoo xamante dañ doon ngàññi suufiye yi bi ñu paree fathul baari le gaa ñi dem taal sahil muslim ne ñoom ay suufiya lañu dañoo mujj encore di wàccewaat tension bi nga xamante ne du ñëpp nag c'est que foofu dafa bari ay njaxas njaxas am na ay borom xam-xam yu yem am na yoo xamante ni yu diggu déggu am na yoo xamante ne lu daanaka takfiir sax dañ koy dañ cee yokkaat hijra la salaama wala kalaama nit ki daal su fekkente ne woo nga ko ci dara ñëwut dootoo ko nuyu su la nuyoo dook du la fay te itam nee nañu encore seen usus yi li tax ñu loo nit ñi mooy yéeféer bi ci atte lu dul islaam muy buur bi yéeféer la muy pare mu ne kooku muy atte peuple boobu yéeféer lañu encore mu tegaat ci boroom xam-xam yi àddina yi nga xamante ne weddiwuñ leen xeex ak ñoom yéeféer lañu kon kan mooy desati usus daal kenn du jullit lu mooy koo xamante ne topp nga seen waaw tey nu du la utiliser nag di la tàkkaloo ay bomb ngay rey nit ñi ci turu islam nag nga yaakaar ne yow def nga lu baax te fekk yaa ngi ci lu bon jaamu yàlla yii te itam wax nañ ne yàlla dañ koy bàyyee mbiram liñ koy bàyyee mbiram laa sakka yent bi nee na inna allazina kafaru min ahlil kitab wal mushrikina fi yi waaye gis nañu euh, kuffaar yoo xamante ne dugg nañu aljanna ci coobare yàlla mooy waajooju nga xamante ne dafa doon def lu bon gëmul yàlla dafay xëy faatu balaa moo faatu mu wasiya ni su ma dee na ngeen ma lakk lenn na ngeen ko jëli ci xaar ma jël ko ci yoon wi te ñëw allo asalaamaaleykum ah, waaleykum salaam wa rahmatullah mbokk mi kan la maa ngi jaar Modou Ndiaye Touba Modou yow la déglu dama dama mos a dégg benn waaw mu ni moom alal waykare boo ko ci boo ko ci diine mhm. waaw ca ma gis ne àllarba kër julli la naa ci naafila la. Mhm. naafila julli toog bi ñaan yàlla yàlla musal la ci ba balaa yi nga xamante ni mi ngi mi ngi war a wàcc ma yaakaar ne loolu yaakaar naa ci diine la bokk. Mhm. loolu daal laay laaj bëgg ku ma ci leeral. jërëjëf. waaw jërëjëf. jërëjëf Modou Ndiaye nuyu ñu waa Touba Imam Ahmed daaneel. E, yëf yi su fekkente ne waa ji nee na. su ma faatoo na ngeen ma lakk genn wàll gi ngeen sànni ji ko ca géej ga yeneen si jéeri ngeen ngeen jéeri ko yàlla bu amee kàttan dekkil ma du baax ci man ndax bon bi ñu defee loolu ñu lakk ko jëri ko yàlla dekkilaat ko ne ko luy lumu mu ne ko ragal la kese yàlla ne jéggal naa la seetal jërëjëf euh, Imam Ahmed euh, xaar ma jël ki ci yoon wi tuuti allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam mbokk mi kan la. maa ngi tudd Assane Diallo woote Dakar. Assane Diallo yow la ñu déglu. waaw man maa leen di jaar bu baax dama amoon lu ma bëggoon participer tuuti rek. yow la ñu déglu Diallo. fii de nekk dafa am ay mbokk yoo xamante ne su ma dajee ak ñoom ñoom dañ may wax sama tur carrément am na yoo xamante ne sax duñ ma nuyu. waaye bu fekkee ñoom ñu ngi seen biir daal ku nekk day wax sa mbokk mi mbokk mi mbokk mi kese lañu nuyu too seen biir te ñun ñëpp ñu àndandoo julli julli joo jàkk ja di ñibbi yàlla suñu kër. Hmm. te ma gis ni mu méngoo trop ak seen waxtaan bi lii imaam wax léegi laa salaama du la nuyu. du la sa yéene jàmm wala kalaama duñ sa wax ak yow. waaw. te ñun xëy na dara utewuñu loolu dañoo bokkul tarixa ñoom axlu sunna ñu jamaa lañ nekk day taalibe tijaan lañu day taalibe bàyyi. jërëjëf euh, Assane Diallo Assane li nga wax noonu du yow rek euh, ma la jox misaal man ci sama bopp man am na ci ñoo xam ne boo ma wooyee boo ma wooyee téléphone boo ma soxlaa doo ma wax Cheikh Tidiane bi tey salaamaaleykum wa rahmatulah ma ne ko maaleykum nga la ma ne la ay naam Cheikh bi tey maanaam baatu Tidiane bi moo leen di déranger <laughs> pour ko li ko wax rek maanaam Cheikh bi tey bëgguñ ko tudd dañu ma Cheikh bi ma ne ko d'accord Cheikh bi tey waxal li nga bëgg rek almuhim kon mel ni bu ñu la déggee. li nga wax noonu dafa teer ci li asan ak li ma la wax nii léegi. ndeysaan te pourtant diine ji ëpp na loolu. Mhm. gën na simple loolu comme ni Cheikh Baye waxoon léegi. <laughs> Imaam da ngay seet waa ji nga xam ne dafa baaxoon nekk ku am ragal yàlla. Mm. gis benn waaye def benn lu bon mu taxaw dugg ci domaine yàlla ne kii yàlla du ko jéggal. yàlla ne moom laa jéggal yow laa lakk. kon tey ñoo bàyyi mbir mi ci loxol yàlla. wallaay wallaay wallaay seetal. dafa baax a baax ba gis ku bon di def loo xamante ne mu ne kii yàlla di ko jéggal mu dugg ci doomenu yàlla yi ne yàlla du jéggal kii mhm. yàlla moom laa jéggal yow laa lakk dëgg la dëgg la kon te ñoo bàyyi yàlla mbiram jërëjëf euh, imam ahmed Cheikh Baye mooy ñëw ci yow bëggoon nañ euh, yow it sa jàngat nooy jàngate euh, source yi usus yi ñu sukkandikoo ñoom pour fiir loo nit ñi ñoom woyofut boobu nga yaakaar weesu na woyof sax ndax lu woyof weesuwul nga def loo xamante ne ci sa bànneexu bàkkan nga ko teg hmm. ma anzala allahu biha min sultaan yàlla waxu ko yonentu bi waxu ko ba pare sa bànneexu bakkan boobu noonu nga nar koo def mu nekk législation boo xamante ne moom mooy kawe législation wu yàlla exemple li ma joxe sànq ci xaaj gi ñu xaaj tawxid mhm. ba pare ku ci gëmul benn ci yooyu ñu ne la xéeféer nga mhm. maanaam ñàkk a dégg gi ñu ñàkk a dégg sax xam nga dañuy dugal eh, ne sifatullaahi daf cee bokk yadullaahi ak nangam ak nangam mhm. eh, sifatul yadi te loxo cër la duwul melo ci man yow sax duwul melo sàkkantumaa ci yàlla cër la ci ñun te boo leen waxee ne yàlla ji am na cër ñu ne la déedéet donc am na loo xamante ne ci génération bi dafa am benn benn borom xam-xam bu doon wax ne ku faible ku néew doole ak ku am doole saa bu ñu dajee liberté bi ki am doole ki am moom lay utiliser pour opprimer maanaam pour noot ki néew doole ki waaye nag luwaa moom mooy ñëw pour tàqale leen pour joxe kenn ku nekk droit am mm-hmm. donc loi yi nga xamante ne ni moom la yàlla ak yonentam teg ci diine ak loi yi nga xamante ne moom la boroom xam yi di jaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sànq imaam wax na ko bi muy yebal ñoom Seydina Jaafar premier hijra najaashi bi boobu najaashi xamagul sax lan mooy lislaam waaye daf na leen rek am na buur boo xam ne du tooñ dañ duñ tooñ fa moom dem leen foofa ngeen làqat ju fa boobu kenn nekkagul jullit ci ardu xabasha bi yépp alors léegi boo ñëwee gis ne am nga doole li leen li leen may lii mooy à un moment donné dañoo gisoon ne am nañ doole lii il faut ñu wax ko surtout jamono Mutawakkil al Abbasi ginnaaw bi Ahmad ibn Hanbal génnee ci kaso gi ba ñëwaat Mutawakkil may ko doole ak nangam ak nangam mhm. fatwa yu bëree bëri ci foofu la jugee mhm. fatwa yooyu nag nga xamante ne sulta bi moom moo ko doon daam mhm. moom moo ko doon euh, ishraaf ñoom ci la ñoo jëlee génnee mu'tazila yi ci diine génnee chia yi ci diine génnee ahlu ñenn ci ahlu sunna yi ci diine nangam ak nangam te imaamu Shaafi daf daan wax ne moom suñ ko bàyyi woon rek moom kenn du nekk xéeféer ku dul ku weddi laa ilaaha illallaah muhammad rasulullah moom bu amoon bëgg-bëggam waaye nag borom xam-xam yi teg nañ yoo xamante ne maara day taali léegi ci jamono jii ñun ci lañ toll il faut ñu ciy wax am na benn légèreté boo xamante ne suñu état yi ñoom ñoo ñu ci war dimbale ak suñu kilifa yi pour que xale yi di bañ di dérivé wu ci lu mel noonu parce que xam nga benn Cheikh Baye boo xamante ne dafa toll ci waxtu jàng nga bàyyi ko internet bi nii rek internet bi lu nekk ngi ci benn oustaz bu nekk mooy toog ginnaaw clavier am dugal idéologie bu mu bëgg tasaare ko wala nga bàyyi ko noonu à sa merci université bu ñëw may ko bu su jël yóbbu dem sol ko lu ko neex bu ñëwee changé ber jàkkay boppam ber garan place boppam ñam nekkoon ay mbokkam mu commencé dootu sax leen woowee mbokk am na jël tuddee leen ay mbokk mhm. loolu nag il faut que suñu borom xam-xam yi ñu amaat structure yu bees bu ñu bëggee mucc ci loolu mhm. parce que euh, défi la ak danger boo xamante ne mu nga yaraam te réew mu nekk mucc ci tant que euh, jàngut réewam gi Nigéria foog mosoon mosuñoo foog ne Boko Haram dina fa am ndax boroom xam-xam yi ñu fa bëri ak ni fa tasawuf saxee waaye tey jii Boko Haram mu ngi fa lu ko waral mooy liberté bi ñu mayee Arabie Saoudite chaque année mu ñëw jël tibb ay junnee junnee élèves yóbbu jàngal leen lu nekk delloo si leen chaque jour ma wax ko Égypte Tunisie Maroc fu nekk nit dina fa dem jàngi ci àdduna bi ñëpp si dëkk ak ñam dëkkoon ak ca jàmm oustaz bi te yow Égypte nga jàngee mhm. man Malaisie laay jàngee mhm. oustaz bi am na fu mu jàngee mhm. ñun Tiwaawoon nga jàngee ñun ñëpp ñu ngi nekk ci jàmm Arabie Saoudite rek la nit di dem jàngi ñëw ber jàkka ber garan place ber ay mbokkam changé doxalin complètement il faut ñu toog réfléchir ci loolu lu waral loolu ak ban responsabilité la ci suñu état am ak ban responsabilité la ci forme jàngalin bi am dinaa koy wax itamit ubbi gi ñu ubbi internet bi te ñun mu tasawi fay parce que discours contre discours moom moo koy tontu. Mhm. discours on fu du ko tontu. bu fekkee ni ki dafa indi idéologie teg kooku doo ko tontoo doole da nga koy tontoo xam-xam. bu fekkee nit ki dafa indi doole nag boobaa mën ngaa jëfandikoo doole nga aar sa bopp mu nekk légitime défense. Mhm. ñoom dañuy jëfandikoo stratégie de communication ci jamono jii. mooy tey jii booy wut benn masala ci diine. Mhm. nga koy wut ci internet boo ko tàppee les vingt premiers sites yi affiché ñaar fukki sites yu njëkk yëpp ay sites wahhabite lañ. kon bu fekkee nit ki amut ràññaale li muy jëlee ci masala ci idéologie ci boobu mooy idéologie bi yi nga xamante ne moom lañ fa dugal te loolu yëpp dañoo jëfandikoo seen xaalis bi ak seen pouvoir bi leen seen sultan bi may ci seen dëkk ba rek mhm. def ay algorithme fay yenn di ñu defal leen lu mel noonu mhm. léegi nag ñun aussi il faut ñu dem vers ça pour que ñu mën a jàng suñu jeunesse bi parce que man xam naa ay nit ñoo xam ne ay tijaan la ñu woon léegi ñi ngay cëkkal seen tuba yi di takfiik seen yaay ak seen baay ak seen ilimaan yi gis naa ay nit ñoo xam ne ay murit lañu woon ña ngay def la même chose bal dégg naa koo xam ne sax ci semaine bii ñu génn mu wax ne senegal benn kilifa diine du fi toog di jàngale diine ku dul docteur diw tudd sëriñam moom ne na moom rek nga fiy tontu ci diine mu la mu laaj ci diine mu tontu la keneen ku dul moom day toog di la wax ay maamam bi ma ko déggee ma ne ko yaa mën a wax lu dul dëgg man Medina Baye laa jàngee te leer na la leer yàlla ne yow ak sa sëriñ rawu leen ma ci alxuraan mënu leen ma wax ci diine lu ma xamut te ba léegi xanaa ñoom duñu ay kilifa diine oustaz Hadi Niass mu ngi nii chaque jour ci télé bi di tontu ay laaj ak ñeneen ak ñeneen ci ay borom xam-xam oustaz Abdourahmane sëñ Abdourahmane Mbacke bu Daaru Moote ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Maïssa chaque jour mu toog këram jàngale donc il faut que génération bi ñu aar ci loolu bu ñu bañee ñi dem ci jihaad ya chaque jour nga gis nit koo xamante ni ku mu ne la mu ngay jihaad mhm. bi am guerre intellectuelle bi am ci internet bi ak recrutement yi ñu ciy def mu ngi jël ampleur boo xamante ne soupçonné wuñu ko il faut rek il faut pas ñi yem ci texte yu an yu yu anachronique yi di wax naan hadis bi aaya bi c'est bien beau moom mooy suñu asas waaye nag il faut ñu xool nan la jamono ji dëppoowee mm-hmm. pour ñu doxee noonu pour tënk rek mm-hmm. waxuma waxuma ne hadisu iftiraqul umma Muawiya kese moo ko riwaaya xam naa ne am na ñeneen riwaaya yu ko ñeneen ruwaat yu ko riwaaya waaye dama ne Muawiya mooy ki ka njëkk a riwaaya ci kaw suuf te loolu xasbat tabaqaat loolu beneen domaine la tey mm. eh, jërëjëf euh, Cheikh Baye mel na ni sax waxtu yi li ci des bëriwut kon léegi bala ñuy génn ak yow dañ lay delloo kàdd gi yan kàddu ngay tàggatoo yan kàddu ngay dénkaani ma door a jox imam Ahmed mm. euh, di jaajëfal imam ci xam-xam bu am solo bi fi sotti di la jaajëfal yow tamit di ñaan yàlla mu guddal seen fan yal na yàlla wàccee barke ci kër gi yàlla na yàlla may suñu kilifa diine gudd fan ak wér ñoom ñi ñu jàngal diine xamal ñu ko ràññee lu ñu lu baax ak lu bon bañ mañ koo maytu mën a topp lu baax mm-hmm. te di ñaan yàlla la yonent bi daan ñaan allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna tibaahu wa arinal baatila baatilan warzuqna ijtinaabahu yàlla nañu yàlla xamal dëgg te mu nekk dëgg te mu wërsëgal ñu ñu mën koo topp yàlla nañu yàlla xamal neen te mu nekk neen te mu wërsëgal ñu ñu mën koo wattandiku ci darajaay sayidina rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jasakumullah eh, imam ahmed mel ne ñi ngi ci minute yi mujj ci jotaay bi yan kàddu ngay tàggatoo ak looy dénkaani waaw li may dénk rek mooy ne eh, ñu sant yàlla ndaxte ñaari école la woon hmm. bu suufiya ak yeneen tey ñiy rey nit ñi di def takfir yi di def bomb yi kenn du ci mënul tuumaal suufiya tey waaye de comme ni ko Usaymin waxee ak Abu Husamuddin nee na ñoom tey salafiya jël nañu loolu te li ko waral mooy ñàkk xam li ñu wax rek mooy ne xele yi bu leen kenn tënk jàng leen xam-xam jàng leen ñi téere yi mag ñi doon indi te na ci luxa jekk jëkk su ngeen ko defut firiluñ leen alquran fu ngeen jaar dañ leen utiliser def leen comme dàll fu tàng rek ñu sol leen bu seddee ñu sol leen waa ji bàyyi la encore ci ngir intérêt boppam mhm. li may wax xele yi encore nañu góor góorgóorlu be nit ki nga naan sa baay du ci mbokk du mbokk yi te bu dee bàyyi kër gis naa ci koo xamante ne bi baayam ba def ne baayam bokkul ci mbokk yi bi mu bàyyee kër fii du mu tudd mais daf ko donn dëj ko ca nit ki nan lay doon ne ku dul mbokkam dañu seet li ñuy wax de li wérte te wóor mooy fa in aqaamu salaata wa aatawu waay waay yàlla nee na ñooñu fa ixwaanukum fi diini ñooñu sa bokk diine la soo gémee alquran gémal lii waaye waa ji def nii nga ne bokkul ji diine ñu dafa ñëwagul kon alaa kulli haal maa ngi lay sant jërëjëf jërëjëf maa ngi lay gërëm mhm. maa ngi lay ñaanal yàlla mhm. yàlla jox la mboolem yiw amiin ñu bokk ko ñun ñëpp yal yàlla fànqal la mboolem musibaak balaa amiin yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp imaam itam maa ngi lay ziyaara di ziare waa xadara bu tedd bi maa ngi ziare sama sëriñ alaji Moustapha Guèye ala kulli xaal maa ngi sant itam ñi nga xamante ne ñoom laa àndaloon dellu di leen jaale koo xamante ne ala xaal ngeen di ko ñaanal yàlla sama pap mooy aadama li moo ma yar moo ma jàngal moom ma jàngal mboole métier. macha yàlla yóbbu ko ci semaine bi. nga defal ko ñaan yal na yàlla yërëm ko. amiin yal na yàlla def aljannay këram. ala kulli xaal lii daal laa doon wax. maa ngi sant itam suñu président de la république. Mm-hmm. yal yàlla dëgëral ko dimmale ko. Mm-hmm. ndax fu ibn Amr Fudaylu da doon wax ne soo gisee waa joo xamante ne day ñaanal buuram. Mm-hmm. jàmm ndax réew mi am jàmm. xamal ne kooku ci waa sunna la bokk soo gisee ku koy rëbb xamal ne nitu bidaa la ida raayta rajulan yad'u li sultaani faalam annahu min ahli sunnati wa ida raaytahu yad'u alayhi faalam annahu min ahli lbidati kon waa bidaa yi dañoo bari tey yal na yàlla jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu kon euh, bokk yi nga xam ne ñi ngi jëloon seen temps jàkkaarloog seen télévision DTV <coughs> ci seen émission bi ñuy tuddee ëttub lislaam lii la yàlla dogaloon ñu am ko ci waxtu lu ci rafet yàlla la neex mu rafetalee ko ni lu ci manqué ci matari ñun ñi ko doon def la ñoo ngi dellu gërëm imam ahmed aarona li di ko ñaan yàlla tawfiq di ñaan yàlla jëf ji yàlla bu mu neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaat yi di gërëm Cheikh Baye Niass di ko ñaan yàlla tawfiq di ñaan yàlla jëf ji yàlla ba neen yàlla na ko yàlla def fi misaani asanaati di gërëm suñu réalisateur di gërëm suñu preneur son di gërëm waa régie bi di gërëm caméraman yi jaamu yàlla yi nga xam ne mbaax moo leen ñor ba ñoo fekkee si jotaay bi ñu ngi ñaan yàlla boole ñoom yi ñu ngi leen jox rendez-vous dox dajee àjjuma bi di ñëw insha allahu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu